mbokk yi leen ko waxee woon kon Magal TV moo xëyoon ànd ak yéen ci bis bu sell bi di màggal gi nga xam ne moom lañ doon séntu euh, bañ agsi ci tey jii jullit ñëpp wuy si ci ni nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi bëggee woon. mel na ne nag liggéey bi bi ñu xëyee Magal TV doxantu na dem ci commission yi nga xam ne ñoo ŋànk comité d'organisation bi nga xam ne Cheikh Bassirou Mbacke Abdou Khare moo ko jiite. waaye nag euh, mu lëkkaloo commission culture et communication bi nga xam ne Cheikh Abdou Bali Mbacke moo ne ca bopp ba division intique Ahmadou Gueye Ndiaye ñu wër commission yi kenn ku ci ne ñu euh, am ay laaj yoo xam ne danañ ko jukki laaj la ko noonu it lañ ñëw fii nga xam ne mooy raw Rawdu Rayaahiin di kuréel gu mag goo xamante ni daanaka euh, ëmb lépp lu aju ci wàllu liggéey bi ñu feggoog sëñ Mbacke Abdourahmane di kenn koo xamante ci liggéey bi koo xam ne kenn duutu ko présenté ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko euh, ñu amoon yetti laaj yoo xam ne moom lañ fas yéenee seq ak moom laaj yooyu laaj bu njëkk bi ñu fas yéenee laaj ko bis bi nga xam ne mooy bisub màggal gi nga xam ne tey jii umma islam bépp daje nañ fi sababas bis bi mu andil ñu ci lenn ci ay tënk rek su ko defee ñu ñëw ci yeneen laaj yi. Euh, bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ala jërëjëf Serigne Chouaib maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi bàyyi xel ëttu tasukaayu xabaar bi di màggal TV. Euh, màggal gi de niñ ko xamee ndigalul Serigne Touba la radiyallahu anhu lu mu joxoon taalibe yi ngir ñu koy santal yàlla ndax ci bis bii nga xam ne ci la fi tàmbali woon tukkeem bu tiis bu metti ba waaye ndekete tukki booba mooy jur xéwal yu rëy yu màgg yi ba ci njaareem 1918 mm, ci yenn rewayaat yi ci la sëriñ bi woote wala boog am na mag ñu jàpp ne ci la njëkk a yëg mu woote ne bis bii daa bëgg bu dikkatee ñu santle ko ci yàlla booba nag sant yàlla ci fooy nekk ay berne la doon def di ko jox nit ñi ñuy sant yàlla wax ne koo xam ne koo xam ne mën naa berne mu berne njabootam bu ko mënee yaatal mu yaatal ko su ko mënut mu dem fu ñuy berne mu fexe ba xewlu loolu bi fi sëriñ bi jógee it noonu la ko ma ngi doon defee ba 1947 ci la Cheikh Modou Fadal mi ñaareelu xalifaam wax nag ne bis boobee sëriñ bi joxe woon ndigal laa bëgg ñu di ko dajee tuwaa di ko fi defee ngir feddali ndigal la ak gën koo dëgëral gën koo dundal waxoon ne waaye nag buñ moom it leeral nañu booba nuñ koy defee nañ ko def ci màggal bis bi ci jàng alxuraan ak xeeti tudd yàlla yëpp te dugg na ci biir jàng xasida ak xeeti bernde yëpp rawatina néew doole yi masaakiin yi ak yataamaa yi ñu taxaw leen ak jokk mbokk ak siyaare borom xam-xam ak yoonu demee yoonu demee yoo nag moo dem ba jataay yu mel yëpp dugg ci biir muy berndey xam-xam yi sëriñ Mouhamadul Fadil moo ko woote Touba 1947. kon booba la doon tudd màggal Touba waaye màggal la woon koo xam ne fu ne la ko nit daan dafa mën a nekk. ba tey jii it ku mënta màggal si mën ngaa màggal fa nga nekk loolu mooy bis bi bisu sant yàlla nag la sëñ bi waxoon. ay xéewal yu ko dikkal. bàyyi ko ci boromam màgg yaatu da àgg ci dayo boo xam ne xeeb na ci sant boppam ak ñoñam muy ne nañ ma sant la yàlla képp koo xam ne sama mbég sa mbég kon muy xarit di mbokk di wëllëre di taalibe di doom nañ ànd sant li yàlla cant googu nag ñaan googu ak wooteem boobee nag moom la yàlla moom la yàlla nangu ba ko sëñ faa Fadi wootee Touba julli ñëpp wuy ko sànq jotaay bi gis nañ këri diine yëpp nationalité yu bàyyi ko ci réew yu wuute ñëpp wuy si wooteem boobu loolu ci ñaanam googu la bàyyi ko kon wuy nañ ko di ko sant la yàlla jotaay yi xam-xam jotaay yi xéewal nit ñi ku ñëw ñu bernde la war la mbég saafoonte yow jokk fi ak mbokk dundal ko fi ci ëtt bi ngay gis ay kuréel yu bokk te wuute lool waaye bokk ma a toog fii ngay gis ab suufi mu nekk kétub salafi te xam nañ ci barab yu bari ñooñu duñ laale gis fii koo xam ne euh, mazahib yëpp dañ ci dugg bokk dajee fii ci ëtt bi gis fi koo xam ne nitu tarixa la ak nit koo xam ne ay association islamique lañ bokk ñu bokk na fi loolu day day jëmmalu lu rëy rëy loo xam ne loolu sam soxla loolu lu sam bëgg kon mën nañoo xam màggal gi sant yàlla la gu sëriñ bi woote woon waaye nag yàlla nongul na ko wooteem ba def na ci barke ba tax fu ne la waaye bàyyi ko di wujj at mu jot su dëkkee nit ñi dañuy gën a yéem yàlla ci yokk gi ak gën a yaatu gi jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane laaj bu njëkk bi mel na ne leer na liñ ci soxla woon am nañ ko ñu bëggoon a ñëw yow ci kuréel gi nga xam ne mooy Rawdu te sëriñ Ahmadou Badawi Mbacké nekk ci bopp bi ñu bëggoon a xam taxawaayam ci màggal gi ak fànn yi nga xam ne yéen a ngi ko seq ak commission yi nga xam ñoo nekk ci liggéey bi. jërëjëf euh, Rawdu Rayaahiin ab daayira la bu dajale ñu yëngu ci xam-xam ñu ngi sosoon depuis 2002 ci ndigalu Cheikh Salih Mbacké radiyallahu anhu li taxoon mu sos ko rek mooy lii wax ne màggal gi bu dikkee daa bëgg ñu berndeel gan yi berndee xam-xam. di tibb ci kaggu Serigne Touba gi di leen jox ni gàddoo moom den leen berndeel ci ay ñam ci ayaju mu sant ak njabootam nag googu nga xam ne ñoom ñoom la daayira bi tënk te muy mbooleem ñuy yëngu ci xam-xam te bokk ci yoon wi ñu ngi ci biir yaatu lool ñooñ ñooy daje nag di dundal lii kon seen taxawaay mooy joxe berndey xam-xam mooy seen taxawaay at mu jot dañuy organiser ay waxtaan bii ñu tekki ne jataay bi yal sax buy am la at mu jot ci suba gi nga xam ne dañuy tànn benn tomb tànn ay kilifa ci réew mi ren masalan am na ku jóge ci njabootu Cheikh Omar Fouti jóge Thierno Bachir Tall mi xalifa bi am ku jóge ci rassemblement islamique ci kuréelu islam yi la am ku jóge université professeur Cheikh Cheikh ak ku jóge fii ci Touba muy Serigne seex na at jot nu mel lañ ko daan nga xam ne jël ci ginnaaw mbooloo fi daje di borom xam-xam soxla nañ. ku ne ñu nga génne dara ci li nga am ngir nit ñi mën ko jariñoo moo tax jotaay bi bu nappee it gis nga mbokk yi ci joxe seen gis-gis seen participation ni amee solo am beneen jotaay bu def ci guddi gi nag muy mag bi nga ne moom dañ koo jagleel sëriñ bi moom sëriñ bi rek lañ ci wane ay jàngaleem ay taalifam léeg-léeg ñu ab téere defar boobu nag moo tax sëriñ bi lañ ko jagleel at mu jël ñu tànn benn tomb bind ko ab téere buñ dikkee wax ko ñu dégg ba noppi nag séddale téere bi am na diraasaat xawla mu génne nañ ci ñaari ñaari ñaari ñaari téere yoo xam ne ci conférence yu lañ dajale tënkaat ko loolu bokk na ci li nga xam ne moom la def kon day daa taxaw ci ndigalul sëriñ bi di ko ganale ganam yi berndey xam-xam loo xam ne ruu lay dundal ak xel ni mu amee ñoo xam ne ñu ngi dundal yaram yi ci ay ñam ak i naan ak ba dalal leen fii moom dañ leen di berndeel ci xam-xam ci ruux dundal seen ruux dunal seen i xel loolu mooy taxawaayu daayira bi ci màggal gi liggéey bi muy defit nag màggal gi lay gën a fees waaye ci biir at mi la liggéey ndax téere minum xam-xam tey tey mu sotti waaye ci biir at mi la liggéey bu màggal gi dikkee nag ñu génne liñ liggéey ren jii wasaaya lañ dajale téere Sëñ Tuubaa dénkaan yu bari Sëñ Tuubaa dénk ci ay téere wuute mool ko tax taxxeex ko mu war a ñëw rek incha allah taala bu àgg see jàmm dañ ko séddale taalibe yi at mu jot ñu tànn benn téere bokkut ak conférence bi loolu lépp ci bernde la ak nag waxtaan yi am émission yi télévision yi ñu def yëpp tey bari na tey kuréel yi ñu yëngu ci wàllu tasum xabaar ku soxla dara da ngay woote ci Rawdu Rahiim ñu jox la élément buy def loola ngir bëgg ñu jàllale lu leer lu wér bàyyi bañ a bàyyi nit ñi rek ñuy foraj mbedd bi ku jot di wax loolu waaw te loolu mbir yi war demee noonu moo tax ñu nosu ba nga xam ne ku jaar ci ñoom daal kañ lay yónnee moom la wax lu mën a amal njëriñ nit ñi lay doon te lor du ci jóge jëm fenn loolu daal mën naa laa tënkal ne mooy taxawaayu daayira bi. jërëjëf dafa mel ne ñetteelu laaj bi nag moom day jëm ci thème bi nga xam ne développé ngeen ko tey fii ci conférence bi euh, bi ci mujj it ndax lii nga mujjee dafa am solo maanaam euh, liggéey bi weesu na. ku ne di wax te la ngay wax amul fenn foo ko wéer ndax noppi ngeen ngir euh, sécuriser loolu nga xam ne mooy xam-xam yi war a génn te tege ci mbindum sëriñ bi ak njàngaleem. waaw xam nga ñun noolu ci lañ ne loolu nag du liggéey bu gaaw ndax am na ñoo xam ne tagguwuñ kenn bu ñuy def duñ tàggoo kooku neexut saytara neexut a neexut yamale waaye man nga rek di génn ay téere di wax ne tom sàngam day lii moo ci doon gis-gis sëñ bi ta tasaare ko tekki ko ci ay làkk suba ku ci jot ku dégg ñu wax la leneen da nga xam ne loolu wérul ndax dañu indi firnde at bu ñuy def benn tomb bi ñu waxtaanee mooy jàmm. jàmmi mbooloo mi ban solo la am ak lu koy téye dégg nga communiqué yi am solo communication yu am solo yi fi mbokk yi def leeral lii tax jàmm am te bañ dee ba ci mujj ga gis nañ ne sëñ Tuubaa mooy woote sëñ Tuubaa bi xejoo ñëpp nangu wuuteeg nit ñi ku baax ku ne nga nangul ko la mu le di digal ay taalibeem foo fekk lu baax jëlal ne sa alal la yaatu dënn googu moom mooy indi jàmm waaye ku jàpp ne dama nekk lekk baax keneen baax lewut foofu jam du am sëriñ Tuubaa nag ñëw na indi loolu joxe misaal yu leer ci wérd yëpp yi baax ku ci topp rek so sobul fukk la wérd ku baax ku masa a dégg mu jàppe ko sëriñam nga xam ne tey ñooñu tey buñ liiree mbindi sëriñ bi seen xool day sedd na xam nañu moom xam na seen kilifa jox na ko waayam sànq mbokk mi jógee lay jógee mm, Louga ci Thierno Bachir Tall laa ko bindal bayit woo xam ne Sëriñ Tuubaa ko bind ci Seex Umar Fuutiyu booba dafa dem ci barab ñu jox ko rimaax muy téere boobu nga def mu bind ci bay du am solo wax ci ne yow mi nga xam ne bëgg nga saa boo xoolee gis lu la bégal bul taqalikoog téere bii di rimaax te Cheikh na amul ci def ko waaw man sarrahu naylu asrarin ida nazara fala yufariq rimaaxa cheikhina omara muy lu am solo te noonu loon daf ci gaay baax yëpp kon Sëriñ ba Euh, tom bi ñuy waxtaanee moom da koo jëmmal nga xam ne moom moom rek doyoon na misaal waaye nag boo ko ubbee kenn ku ne kër ga nga jógee nga indi luy firndeel loola day tax mu gën a yaatu gën a baax te tey ñi fi teew dégg nañ loo xam ne amal leen njëriñ tom bi ñu war def ci guddi gi incha allah tukkib sëriñ bi ca gànnaar la daaw dañoo defoon tukkib géej gi war cee sof nga dañ koy tàmbalee incha allahu taala daru man naan lu tax yoonu gannaar wi lu ko waral incha allah dana leer tey ci ngoon fa jaar ba mu demee gànnaar lu fa xew lu fa jóge yan jeexee la fa bàyyi ci xam ci wàllu jàmm yi ñuy ci wàllu ak mbokkoo ci wàllu tarixa ak yéeg yéeg yi mu fi doon yéeg yim ci yàlla loolu lépp sa yàlla danañ ko leeral bu ngoonee loolu mooy li nga xam daal moom la daayira bi nekkee ci yëngu incha allah taala